salaamaaleykum suñu mbokk internet si ñu leen nuyu baax baax leen ziar lay wax ni da leen jàmm fii seen chaîne Dakar People tey ñu ngi fii seet si koo xamante ne kenn du ko présenté di yëngu ci wàllum faj wàllum seet wàllum ñaan muy kan muy Mouhamed Habib borom këlëg jinne yi Mouhamed Habib ñu lay nuyu la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi allazi lam yalid walam yulid walam yakun lahu kufuwan ahad rabbi waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli euh, Aïcha maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la tatagal di la wax ne yegg si la ak jàmm. ne koy bu baax a baax Mouhamed Habib mais ba ñëw tàmbali ci question yi rek ñu waxtaan ci wàllum këll gi këll gi yi la mooy la mooy loolu. waaw alhamdulilah soxna Aïcha laaj nga man laaj bu ma neex te dinaa si sawar tontu lool li nga xam ne nii mooy këll jinne yi wax naa ne wiraasatu la donneef la boo xam ne nii maa ngi ko doon ne si sama maam ndaxte sama maam dafa amoon ay jinne dem na ba si nga xam ne nii mooy ñaareelu soxnaam mi sax jinne la woon euh, bi mu ñëwee nag di jëflante jinne yi am na benn këll boo xam ne nii euh, chaque jour rek bët bu set rek da ci daan defal jinne yi ndox bu ñëwee di ci naan ba mu jigi dem na ba lool man maa ko doon def di ko ci wuutu bu mu demee ba xaw a doon mag ndaxte wax naa ne man la njëkk gis si sët mu bëgg ma lool fonk ma lool jege ko lool yu bari man na ko doon defloo bi mu demee ba xam ne nii dëdd na jinne yi nag toxu si dikkal ma kon foofu la këll ji ne jógee ba tey maa ngi continuer di doxal tàmm coloré gu ak julli jille yi ñu ngi toll si juróom-ñaari jinne waaye nag alhamdulilah ndaxte bi ma dalee jëflante ak ñoom ba léegi mosuñ maa wor lépp loo xam ne nii maa ngi koy liggéey danañ ma si jàppale bu baax def seen kéemtalaay kàttan ba du ma si ruus kon alhamdulilah ci côté allah am na solo Habib Mohamed ñu waxtaan itam ci wàllu màggal gi gars yi di doon wax naan dina am ak du am mais yàlla def na mu am ñu waxtaan itam ci Aida Diallo la ngay wax ci moom. waaw alhamdulilah màggal gi moom ala kulli xaalin dafay am mosu maa wax ne màggal du am te képp koo xam ne nii wax nga ne màggal du am rek attaqué naa la wax ne la màggal gi moom incha allah dina am ndaxte wax naa ne liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba amul pertement ndaxte waliyu yàlla la te waliyu yàlla liggéeyal ko amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ba ci xataa ki nga xam ne nii jullit sax liggéeyal waliyu yàlla daf ko war ndaxte kuy liggéeyal waliyu yàlla ku nekk rek da nga gis sa mbir dafay gën di kaw di gën a yëkkatigu waaye ki nga xam ne nii nag mooy soxna Aida Diallo maa ngi delluwaat di wax ci moom ne ah li xam ne nii gisal naa ko ko su si taxawut balaa màggal gi dana am loo xam ne nii du na naxar la dana jug ci moom te bu jógee ñëw ci moom ay lampam mën na see fayee kon am na sarax boo xam ne nii gisal naa ko ko te nag man bàyyi naa wax sarax te réew mi dafa tool foo xam ne nii lépp loo wax la rek nit ñi dañ koy gisee ne kon wax ji amul njëriñ jaru ma koy wax incha allah bu fekkee daal yitteel na ko te bu fekkee bëgg na màggal si jàmm ah na jokkoog ñun ñu wax ko sarax yi nga xam ne ni moom lañ ko gisal sinon màggal gi dana xaw a taq suuf côté lool incha allah kon alhamdulilah ci côté boobu. macha allah am na solo ñu jullu itam ci wàllum seet yan façon seet ngay seetee Mouhamed. waaw soxna Aïcha man ramlu laay seetee man bañ naa ko ba am na ñoo xam ne sax borom tomb yi lañ may ooyee ndaxte man ramlu lu ma mën la lu ma jàng la wax naa ne jàng naa ko ci gox yi fasantikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew jàng naa ko lu ëpp juróom-ñaari at. am si ay lijaasa yoo xam ne nii su ma doon tudd ñi ma ko jox ay kilifa lañ ci réew mi yoo xam ne nii ñun xam ndaxte wax naa ne ramlu moom xam-xam bu wér la benn seet gëntu wér ramlu kon loolu moo tax ñu tànn ramlu di ko seetee dëgg la ah am na yeneen xam-xam yoo xam ne sax ñu ko làq ci wàllu seet waaye daal ñun ramlu moom lañ tànn di ko seetee ndaxte lépp loo xam ne nii wax nañ ko rek gis nañ ko ci ramlu wax ko rek ala kulli xaalin loolu moom lu dëggu la kon alhamdulilah. ankay damay def listixaar ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu sant listixaar ndaxte wax nañ leen da seet seen mbir bala ngeen cee dugg kon listixaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a digle kon ñun dañuy listixaar waaye nag am na ñoo xam ne nii seen soxla dafay toll foo xam ne nii pour nga listixaaree leen du day xaw a jafe wala dañuy xaw a yàkkamti waaye am na ñoo xam ne tamit dañuy tànn listixaar pour nga defal leen ko waaye bépp boo xam ne mu ci doon rek incha allah boo mais yow loolu noonu ci boobu ban jàngat itam nga ci am wala yow itam yow loolu da nga koy def xam-xam bu ñuul. waaw xam bu ñuul baaxut loolu kenn waru ko wax xam-xam kenn du wax baaxut xam-xam bépp xam bu mu mënta doon rek baax na ndaxte nit ki bala nga toog rek war na am loo xam ne da nga jël ngàndaayoo ko donte doo ko jëfandikoo sax nga ko am bu la kaa urgence nga mën ko jël fagandiku faj sa soxla kon man du wax xam-xam ñuul baaxut dëgg la gaa am na yoo xam ne man ko si làq waaye duma koy jëfandikoo wala lu ma koy jëfandikoo du bëri xataa ki nga xam ne nii dafa toll foo xam ne nii moom xam-xam boobu kese moo ko mën a dimbale incha allah dinaa fexe ba dimbale ko waaye xam-xam bu ñuul moom man du wax ne baaxul te kenn warta wax ne baaxul ndaxte xam-xam du bon déedéet. macha allah am na solo Mouhamed ñu waxtaan itam ci wàllum noob da ngay da ngay yëngu ci noob bu baax. wax naa ne man maay roi bi guddi yi ñu toll man maay roi noob képp ku ma noobal jooni jooni say mbir dana faju képp ko xam ne ni jëflante nga man ci nopp sa xol dana sedd ak koo mënta nopp moo xam ku ñuul ngay nopp moo xam ku weex ngay nopp incha allah topp la ni xaj ni mu toppee boromam lépp loo bëgg ko lépp loo wax mu nangu ko lépp loo ko laaj mu jox la ko dinaa ko tàggatal ba nga sa xol sedd guy kon wàllu nopp moom wax naa ne man maay roi bi ci guddi yi ñu toll kon du ma ci guddal ndaxte euh, baal ma jëm foofu rek d'accord mais dafa jafe est ce que loolu noonu li ñuy na. waaw nopp dafa jafe waaye nag jafewul ci ko ko mën ndaxte nit ki bala nga ko liggéeyee rek faa nga xam nit ki kan la mais su fekkee yow da nga ñëw bëgg jàpp koo xam ne nii moo la sutum lees da ngay sonn waaye nit ki nag pour nga jàpp ko régler ko teg ko ci point yi nga xam ne nii moom la war a jaar pour am li nga bëgg loolu borom xam-xam dëgg moo ko mën te xam-xam boobu yàlla dénk nañu ko kon nopp du jafe ci ñun waaye am na ñoo xam ne nag ñu ngi ciy ñëw di ñuy wax jàmmatal ay jafe-jafe yoo xam ne nii ah, ñu ngi leen ciy dimbale kon ñun nopp jafewul ci ñun lépp loo xam ne nii moom wàllu nopp la rek ak bu mënta doon moo ki nga xam ne nii soxnaam lay nopp wala ki nga xam ne nii ay lay nopp wala ki nga xam ne nii ay njaatige bi ñi muy liggéey la bëgg ñu bëgg ko ñu sopp ko incha allah bu ñëwee fii xaajam dana faju kon nopp moom jarul ma ci guddal ndaxte du si nag bi xajul ci cin li sama liggéey la. am na solo ñu jublu ci wàllum am-am bu gaaw parce que xale yi tey jii sax ñoom dañoo bëgg am-am bu gaaw yow loolu noo koy defee. waaw am bu gaaw maa ngi koy liggéey bu baax a baax a baax baax te bëri na ci fànn yu ma koy liggéeyee dinaa koy liggéey ci loto di sant yàlla bu baax ci teraanga yi nga xam ne nit ñi mu ci jox di sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla dimbale leen yàlla sàmmal leen seen alal jooju ñor te yal na yàlla xeer leen ci def lu baax euh, naa ci liggéey li loto naa ngi si jëflante ñu bëree bëree bëri seen mbir di faju euh, waaye nag am na yeneen yu ma koy liggéey yeneen façon ba ci xattaa jaaro bi ma takk sax dina koy liggéey si am bu gaaw ku ma ko defal ku ne doo toog lu mat juróom-ñaari weer te yow nekkoo millionnaire wala nekkoo milliardaire ak loo gàtt wërsëg gàtt wërsëg doo ko takk lu ma juróom-ñaari weer te nekkoo millionnaire wallahi al azim kon alhamdulilah jaaro bi moom euh, li ci nekk jinne yi ñoo ma koy jox li ci ne jinne yi ñoo ma jox sunguf la boo xam ne nii jinne yi ñoom a koy jox ki nga xam ne ni mooy kilifay jinne yi moo ma jox sunguf si ma ciy def kon wàllu am am bu gaaw maa ngi ciy liggéey lépp képp ku ma si jëflante wallahi al azim doo toog juróom-ñaari at te ne juróom-ñaari weer te nekkoo millionnaire wala nga nekk milliardaire soo gàttee wërsëg ba gàtt wërsëg ci ngay nekk millionnaire mais sa wërsëg su ubbee ko moom milliardaire ngay nekk wallahi macha allah am na solo Mouhamed ñu jublu itam ci wàllum fay bor. waaw wàllu euh, maa ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax ndaxte lépp dafa métti te képp koo xam ne nii lem nga rek bëgg ngaa fay te boor kenn du ko fàtte nga am ko mën ko fay nga am ko bëgg nga am ko fay ko wala nga ñàkk am sa xel mi nekk ci fay ko waaye boor kenn du ko fàtte amul kenn kuy am bor di ko fàtte képp ku am bor rek nga kaa fay donte sa at tak sa kattan may la bëgg a fayee sax wala sa am am may la bëgg a fayee sax waaye da ko bëgg a fay waaye képp koo xam ne nii am nga bor bëgg kaa fay incha allah boo ñëwee ci man sa bor bi da nga ko fay ci lu gaaw a gaaw a gaaw juróom-ñaari fan laa la may sa bor bi da nga ko fay incha allah ba ci xataa ki nga xam ne nii sax dañ ko yoral mu bëgg ñu fay ko su ñëwee fii dina am loo xam ne nii maa ngi koy liggéey ci àll waqandeer laa ko liggéey toog fi ma toog am na ismullah bu may liggéey di ko si wér da ñetti fan su ma ko liggéey ba tàggatal la ko lépp loo xam ne ni yoral na ko jinne yi ñoo dem ci moom yebal ko ne ko nan dem fay la sa xaalis par force ba xataa day jaay këram yi sax ñoo fay la bor waaye dañ la fay sa bor bi kon loolu maa ngi ci liggéey ay di ci dimbali ay jaamu yàlla bu baax fii ci réew mi ak ci kon wàllu fay bor moom euh, alhamdulilah ci côté boobu ba tey. d'accord ñu waxtaan itam ci wàllum papier koo xamante ne mi ngi fii bëgg a tukki amu ay kayit koo xamante ne mi bitim réew bëgg a ñibbisi itam mënu fexe ba ay kayit. waaw wàllu kayit moom wàllu kayit moom liggéey bi ma ci liggéey amul kenn ku ci liggéey ci guddi yi toll ndaxte du ma bañ damay bañ joxe nombre sax mais am na nombre boo xam ne nii maa ngi ko takk mu leer ma ne ñii si samay loxo lañ jaar pour am kayit gannaaw nibalal yàlla kon maa ngi sant yàlla ci lool bu baax a baax a baax di continuer di ñaax sama mbokk sëriñ yi ñu dimbali nit ñi ci wàllu kayit ndaxte wax naa ne tukki dafa métti te képp koo xam ne ni tukki nga rek da bëgg a ñëw indi suqali sa réew suqali sa famille kon képp koo xam ne nii mu ngi bëgg kayit fa mu mënta ne wala moo xam dafa bëgg a tukki wala dafa dem tukki ba pare ay kayit tëgo incha allah bu jokkoo ak ñun euh, bépp kayit bu mënta doon nag dinaa yebal ki nga xam ne ni mooy kilifal jinde mu dem foqati kayit yi jox ko ko xaajoom faju te du yàgg dara te du doon benn liggéey boo xam ne nii lu métti lay nekk wallahi alazim gis ni waa bitim réew ñoom ñoo gën a sonn parce que sëriñ yi itam ñoom parfois am ñeen ñoo xamante ñoom di leen ndax lekk seen xaalis yow loolu noonu ci boobu noo ko gisee naqarlu ko lool mu nekk loo xam ne lu ma naqar la lool te sama bi laa ko tibbee wallahi alazim li ma ci jàmbatal te dafa bëri lool waaye nag fépp foo gis yu yàq rek am na ñoo xam ne nii ñu ngi defar ndaxte euh, su fekkee ne téeméer sëriñ yëpp ay ñaar fukk lañ su ma yeboo ma fukk ak juróom ñaari yëpp ñoo si jubal waaye ñu si des yëpp yàqkat lañ waaye loolu moom fépp foo dem rek mu ngi fa ba xataa ki nga xam ne nii sax borom xam-xam la sax am na koo xam ne ni mu ngi borom xam-xam te fekk na xamul xaala wala kasiran kon loolu ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax di ko te di ko ñaxtu suñu mbokku sëriñ képp koo xam ne nii yaa ngi woote xam-xam fekk mu nekk ci yow waaye di woote loo xam ne nekku ci yow loolu gàcce la te defet la te tamit képp koo xam ne nii war yaa ngi koy def rek war nga ci xool yàlla kon maa ngi koy naqaru lool di wax ne incha allah képp koo xam ne jëflante ngeen ci fi lool sa xol dana sedd te sa xaalis dana faju incha allah. ñu jullu itam ci wàllum kaaraange wàllum ubbeeku wàllum bayre ñett yooyu. waaw fi may njëkkee mooy wàllu kaaraange ndaxte ku mucc ku nekk danga mos nit ki mënta nekk ci àdduna bi di dund te wérut wala te xelam dalut mu bëgg am loolu mënta ne bala ngaa ut alal day fekk nga mucc ba pare. sa wér yaram bu baax nga am wér yaram bu baax a baax sa xel dal amoo benn feebar boo xam ne nii mu ngi lay daane wala amoo benn euh, xel mu diis boo xam ne ni yaa ngi ko yor pour sa wàllu am am gaawal nga mën a ut te doo sonn te doo am benn xalaat booy xalaat loolu maa ngi koy ci kaaraange wax naa ne bëri na yëpp façon yi ma koy liggéey waaye ñaari ëpp liggéey am na boo xam ne ni si dàll càmmooy bi nga xam ne ni ci laa koy liggéey boo xam ne ni xamoo boromam waaye loolu dafa jafe ñu bari bala ñu ko am dañuy sonn lool wala duñ ko amante sax waaye am na beneen nombre boo xam ne ni manque ci liggéey wax naa ne nombre boobu soo ko takkee juróom ñaari gaaw-gaaw la am ñaari gaaw-gaaw la am soo ko takkee ba gaaw ko oto boo dugg du accidenté fekk yaa ngi oto oto bi du oto bi dana mucc fekk ba ngay wàccee boo wàccee nag man xamatuma si dara waaye fekk oto bi moom oto bi du accidenté doo dee si ndox doo dee si lakk doo def benn accident daal doo ko def ba ci xattaa li nga xam ne nii moom la olof di wax nit guddi sax boo ko takkee aw foo xam ne nii ñaar téeméer nit guddi ñu ngi fa wallaahi la du la gis ngelaw ngay mel ni ñoom si seen bët yi kon wàllu kaaraange maa ngi ciy liggéey liggéey bu am solo am na tamit maa ngi koy liggéey si jaaro jaaro bi moom képp koo xam ne ni takk nga ko rek su su fekkee liggéey mu ngi ñëw ci yow da nga xam ne lii liggéey la su fekkee corte même corte lañ la sànni nga ma sànni la gis fi taas su ko defee nga am na cangat yoo xam ne ni moom lay àndal da nga bàccoo rek mu mel ni yow dara masul la dal kon wàllu kaaraange moom alhamdulilah waaw bukki xam nga fu mu jaar fu ne ñëpp danañ génn naan anam anam fu mu jaar anam fu mu jaar kon sama bayra bukki bi noonu la mel képp ku ko sangoo dangay ñëw ne ma dollil ma amul kenn ku ko mas sangoo ñëw te waxoo ma dollil ma te du yàgg dara soo ko sangoo ñetti fan doo toog lu mat weer wala lu mat 15 jours te oo ma ne ma dollil ma ci bayra bi ma joxoon wallahi alazim ñu waxtaanee ci wàllum ubbeeku itam. waa ubbeeku tamit maa ngi ciy liggéey bu baax ndaxte ku wax bayra wax musluwaay war nga wax ubbeeku laata ubbeeku moom ku nekk loolu nga bëgg wax naa ba ci xataa gémmiñ gi nga xam ne nii sax yaa ngi ko moom yow yaa ko moom yàlla la ko bala nga ko war a ubbi nga ko war a ubbi yaa ngi ko war a ubbi a uh, loolu la yàlla wax kon loolu ñu sant yàlla gannaaw gannaaw daal li nga xam ne nii xam-xam bu ñu làq la loolu yëpp ñu ngi ko gannaaw yàlla daal ñun mënuñ dara xamuñ dara waaye yàlla rek moo mën kon alhamdulilah lépp loo xam ne ni def nañ ko ñu gis ko rek kon nañ wax ne yàlla la kon nañ wax ne yàlla la alhamdulilah. am na solo Mouhamed Habib ñu waxtaanee rek ci wàllum impuissance sexuelle parce dafa sonal góor ñu trop. waaw li nga xam ne ni mooy impuissance sexuelle euh, dafa doon loo xam ne nii lu garaaw a garaaw la garaaw te nit wala góor képp koo xam ne nii yow nit nga góor nga rek yaa ngi muslu si feebar boobu. waaye feebar boobu nag dafa doon loo xam ne nii lu lëmbee jamono ji la si biir réew mi ak ci bitim réew mi waaye li koy joxe dafa bëri bi ma ci gën a reconnaître moom mooy ki nga xam ne nii dafa juddu di fooye boppam kooku moom la chaque année bala moo màgget wala bala moo làq yéen at yi moom dana ko feebar boobu dana ko dal am na ñoo xam ne tamit si hémorroïde lañ koy jëlee am na sax ku ma laaj ba xam da ngay faj hémorroïde ma ne ko waaw damay faj hémorroïde mais man du faj asma du ma faj euh, diabète yooyu du ko faj mais hémorroïde dama koy faj te naa ci ay tegtal yu leer ndox ndoxam siti dama dama koy faj asma daal duma ko faj ak diabète ak li nga xam ne ñooy wax tension moom duma koy faj waaye li nga xam ne nii mooy hémorroïde moom dinaa ko faj te su ma waxee am na ñoo xam ne nii sama loxo lañ jaar seen hémorroïde moo xam bu feeñ la moo xam bu nëbbu la suñu jëflantee 40 jours da nga xam da nga tàqalikoo ak moom ba ilal abad kon impuissance sexuelle ki nga xam ne nii daf ko judduwaale wala ki nga xam ne nii daf kaa dab wala ki nga xam ne nii dafa dem takk soxna soo xam ne du soxnaam a waaye su dara desul lu ànd ak soxna si rek day mel ni moom dañ ko xapp ndox mu sedd loolu li koy waral mooy li nga xam ne ni yow safara nga takk ki nga xam ne nii ndox la soo waree dugg ci moom daf ba nga mel ni glace waaye bu mu ci mënta doon rek incha allah dinaa la am ne suñu fa jaaree dinaa la ko ba nga ak yow ba ngeen équilibré li tubaab naan équilibré da ngeen équilibré ba la sàkk ci moom incha allah da nga ko am. Mhm. macha allah am na solo daanaka waxtu bi léegi mu jeex mais ñu waxtaanee rek ci wàllum am am doom koo xamante ne waaye tamit jabaar. waaw wàllu am doom ah, di sant yàlla bu baax a baax a baax gannaaw turandoo yi mu ci am yëpp wax naa ko te danaa ko waxaat ki nga xam ne nii dafa masta am doom wala ki nga xam ne dafa am doom ba si kanam mu arrêté mbépp bu mu si mënta doon incha allah ñu jëflantee du yàgg dara nga jël ëmb. ak moo xam ëmb boobu bëgg su fekkee doom ju góor nga bëgg sax bala mu am 3 mois su ma ko yëgee incha allah na loo xam ne su ko joxee gannaaw yàlla da nga am doom bu góor te doom bu góor bu barke lay nekk ku dund te barke ku ñëpp yaakaar ku war a suqali réewam wallahi la azim kon wàll li nga xam ne nii mooy wàllu am doom tamit ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ciy dimbali nit ñi def bay waar bu am solo waaye loolu yëpp di gannaaw yàlla suñu maam yi ñu ko doonee ñu ci liggéey liggéey bu am solo na ñoo xam ne nii si sama loxo la jaar ba am doom gannaaw yàlla kon boobu ñu si ciy liggéey bu baax ki nga xam ne nii nag wàllu rawxaan la moo ko dal ba mënta am doom ay rawxaanam ñoo fiir ba mën at ni ëmb kooku tamit am na foo xam fa jaare ak moom rawxaan yooyu dañu ko muñal dana tàqalikoo ñoom ba mu mën a jël ëmb waaye am na ñoo xam ne nii moom seen rawxaan ni ñu attanut ëmb waaye am na ñoo xam ne tamit feebar lay doon am na ñoo xam ne tamit def-def lay doon waaye bu mu si mënta doon rek bu ñu jëflante sa xol dana sedd. wàllu am jëkkër am jëkkër moom wax naa ne am na téere boo xam ne su ma la ko takkalee doo am ñetti weer te gisoo koo xam ne nii nee na la dama laa bëgg te ku am njëriñ lay doon de wax ma la koo xam ne nii nag tekkiwu dara koo xam ne nii ku ñëpp di la mooy ñëw ne la dama laa bëgg koo xam ne nii jëkkër nga bëgg tamit jabar nga bëgg tamit boo ñëwee fii am na loo xam ne su ma la ko joxee nga takk ko balaa mu am gis koo xam ne nii da nga ko bëgg takk ko te su ngeen sëyee sëy bu barkelee doon te da ngeen am njaboot waaw. macha allah am na solo daan jeex a tàkk mais booy tàggatoo nga tàgg nga waxaale ci wàllum gàmm gi est gàmm gi dina am incha allah. waaw gàmm gi dina am loolu moom laa shakk fii loolu jarul laaj loolu jarul laaj ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, suñ nee toog fii gannaaw yàlla moom la kon yonent bi sallallahu alayhi wa màggal yonent bi kenn ñemewut a wax ne du am man boog ñemewuma ko de jullit laa taalibe laa waaye ñemewuma wax ne màggal du ñemewuma wax ne ma kii du am gàmm ndaxte ki nga xam ne ni moo gën ci mbindeef yi ñu war ko màggal nit taxaw ne kenn du ko fi màggal ah loolu moom yaakaar naa ko même suñu feebaroon bay dee ba ñëpp di dee sax ñu génn di dee comme ay wen ni ñuy dee sax dañuy dem def li nga xam ne ni mooy gàmm gi kon ñu ngi ñaan yàlla yan nañ ko fekkee ak jàmm te tal ko lépp loo xam ne nii ñu ngi ko ci bëgg a def wala ñu ngi ko si war a def yal na ko yàlla yombalal ci ñun di nuyu ki nga xam di jaale ki nga xam ne nii kilifa la ci réew mi kilifa la ci ummatul islam kilifa la ci xadara Cheikh Ibrahim di ko jaale yal na yàlla yërëm ko xare ko aljanna yal na yàlla maye njabootam xolu muñ kon ñu ngi métti di bokk ñoom tiis bi ak naqar bi di ñaan yàlla yal yàlla may ñu xolug muñ kon alhamdulilah ba tey. waaw li may tàggatoo rek mooy di ñaanal yàlla yan na yàlla def jàmm ci réew mi. yal yàlla jeexal feebar bi mu ngi jeex sax ndaxte soo daan xëy di am lu toll si téeméeri kaa ak lu teg ngay dem bay am fukki kaa wala juróom wala fukki kaa ak juróom kon mu ngi wàññeeku te luy wàññeeku lu nekk rek gëmal ne bés dana ñëw mu jeex kon am na ci yaakaar bu baax a baax ne corona bi moom léegi tey ñu ko moom ndaxte réew mii wax naa ne réew jullit la wax naa ne réew ñaan katu yàlla yi ñoo fi ne ndaxte am na ñoo xam ne nii du ñu gëmm seen bët guddi chaque guddi heure bu mënta doon soo leen fëggee ñu seen kurus ñaan yàlla te nit moom yàlla du ñaan yàlla yàlla di ko neenal kon alhamdulilah laa shakka fii te léegi tey ni tàqalikoo li nga xam ne ni mooy corona bi waaye nag loolu yëpp yàlla dañuy wan boppam di ñu wan mën-mënam kon loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal yàlla président Macky Sall na yàlla dimbale ko mu motali yéen bii nga xam ne ni moom la yenu di ñaanal yàlla xalifa kilifa kilifa diine yi kilifa aada yi rawatina xalifa général yi yal na yàlla may leen kattan yal na yàlla may leen wér yann yàlla may leen am am buñ mottalee sémbu bi nga xam ne ni sémbu nañ ko yenn yàlla tàggatal leen seen i ba lépp loo xam ne ni bëgg nañ ko ñu fekk si leen si ci daraja yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquran di nuyuwaat sama mbokk sëriñ yi di leen lancé waat appel ñu sellal liggéey bi ñi nga xam ne nii bokkuñ ci nañ dem si seen mënin ñi nga xam ne nii nag ay sëriñ la yann yàlla dimbale leen ba képp kuñ jëflante seen xol sedd kon lool laay tàggatoo sama mbokk sëriñ di wax ne wa axiru daawaan an alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf